macha allah. lii de laay def. yow nañu. yaa gars yi gis ngeen madame Bane ngeen di gis nii. gars yi soxna Afrika.

Marie là, vous avez vu, c'est la femme de Ndoye Ah, donc, mi ngi yow Ndoye Bane am na nga nuyu ñii. macha allah vous avez vu yow. yaay sëñ Bassirou Khadre ak maman maman Ndege. Khady Gueye doy baat moo tuddee maman Déguène Chimère doom moo tax tey allah je me permets de faire un live ndax li dafa neex gis ngeen soxnaa Marie Bane yaayu nenne ah mi allah donc moom la rek dafa topp kóllëre bi il fallait woon ñu comme je dis toujours je partage tout avec vous et doy baat doy baat muyul fii baat muyul fii kay kay baal yi tamit ma sama page bi. moom moo sama page bu Facebook. yaa jur sama yaay déedéet waxal dañu dañu kontaan ñoom ñëpp a kontaan ndax li nga tuddee maman doom. ah kon ñii ñëpp ay doomam <laughs> nii yow yaa ñu gagné ñun ñëpp. dama leen a yow yow moom fi mu door nga moom ay ay ay ay ay bi bi bi gars di couvre-feu. wallaay ngi liggéey dégg tombé au mois d'octobre ah bi maman wàccee liggéey waaye même bés bi muy mercredi kon nag maman rek moo ñëwaat ñu ngi koy sant di ko ñaanal Maribane moom itam di ko ñaanal maman de Cheba bi yàlla na suturandoo am fan wax dëgg dama mos a moom mooy tey yow man 800 et quelque daaw ma ko sax am bës bi bës la mais xoolal kër yi yow tey fi mu ne nii bëgg nañ la <laughs> dañ ko gën a bëgg fi mu ne ah sama sama Facebook bi 9000 non lii bës la et là je vous montre ma femme gis ngeen macha waaw waaw ma femme adorée xoolal le grand photographe mais Amar Khary loo wax ci bés bi. non yow yu baax yëpp yaa pare lii dafa fort. Uh-huh. ñu ne tëf na dégg si yàgg seetaan TFM. gis plateau la xam mm-hmm. na lu mënta nekk. macha allah war a mën a nekk. dëgg la mille personnes dugg si nañu kon nag. yaayu nen looy wax yaayu sëñ Bass Abdou Fall. ak maman Degene looy wax. kontaan rek macha allah. macha allah en tout cas macha allah ñëpp ci kontaan. ah gis ngeen de waaw. Ah. <laughs> merci gis nga <laughs> yëfi Degene tey maman rek a ñëw donc là je vais vous présenter la meilleure de maman Degene di ko dégg tout le temps muy maman Kinouska ah donc. Euh, euh, moom daal ki ne ndaw bi ngeen di déggee mooy xaritam de la doon de di lekk ceebu jën ak tànki bu ñu ñibbee muy jaay nan bu la neexee nga ñibbi fii laay toog mi ngi nii moom itam ah, maman Kinouchka comme vous la voyez ah, fidèle ah, euh, bi maman demee ba tey bàyyiwul bëggoon tëral seen yaay ji enveloppe yeeg valise yeeg ah, bëgg naa fi ne ni ñu def ko benn défi fii ba euh, maanaam jàngam jardin ba ba ba ba terminal gars yi dama bëgg ñu jël ko en charge waaw lii daal nañ ci dogu lii laa wax na yëpp wàcc ñu fay lépp ñun toog jàpp suñu ñàmbur waaw mel ni ku deful dara lii la lii lii lii lii c'est noble en tout merci pour les cœurs Aïssatou Mbaye ci Ami Camara merci beaucoup ah la star xool leen donc maman loo wax ci bés bi ah, moom moom ngir sëñ Fall ndax li mu def moom xam naa ci xolam la ko dencoon wallaay yàlla fay mhm. waaye yow yaa ko njëkk a tuddee doon wallaay wallaay mais bii nag moom bii ah, moom macha allah <laughs> tu es en tout cas waaw kay tey maa ngi ci état daaw ma yendu xew waaye tey am naa fitu yendu xew <laughs> mais en tout cas merci pour tout merci de pour les cœurs, merci pour les messages, merci pour les love, les make-up. Alors, vous avez vu, hein, donc Ndoiba, il a su faire un bon choix. Gis ngeen madame, machallah donc euh, jërëjëf jërëjëf euh, ci dugg si bi yéen ñëpp vous êtes 1100 et quelques personnes à suivre. merci du fond du cœur ñoom Ndeye Khady Ndiaye Bilel Ka Kapoulo bébé Marem Ndiaye merci yaa Cheikh Dioum toi message est arrivé en premier tu juste un ange macha allah ah Fabé Ba bëgg Bamba yow itam Mami Lay Diop Maymouna Fofana yi fi daal surprise la ci kanam nag la yi fi ni dara gën a neex ndax ku ne yëg ko ku nekk bëgg nañ participer télévision Futur Média dina ñëw en force. rawatina nag ay jege ñaale ak ay mbokk Adja Jegem ñu ko yàgg bëgg ñàkk ko sopp kon daal mi ngi nii merci Diouma je vais arrêter le live <laughs> aujourd'hui on est en famille je vous love je vous aime et merci beaucoup waaw sañ se baa ngi nii rek waaw wanaana leen noonu tuuti sama ki ak sama tuuti montre noonu waaw te dama ëppal te yëfi daf ma benn bu ma ko yëgul woon sàjj sama yëf waaw benn petit sautoir rek waaw tuuti maquillage rek def tuuti paillette te yëgu ma dara de kon bu ma ko yëgoon fu ma jëm <laughs> kon gars yi à tout à l'heure <laughs>